yéen suñu mbokk internet yi mën ngeen a abonné ci suñu chaîne YouTube groupe Bawol info officiel ngir ngeen di mën di jot xibaar yu wér te fu ngeen mënti ne ci ni mu gën a gaawee. Baolinfo.net site d'information générale baolinfo.net arobase gmail.com baolinfo.net informer en temps réel. suma xarit la. Euh, man ak moom dañ daan daje Marseille parce que sama soxna. Euh, magam bu jigéen foofu la dëkk donc dafa may daan dem Marseille te saa yi ma demee Marseille daf may recevoir foofu këram may muy ñëw suma kër may dem këram euh, te li mu mën a waaree mooy mooy Pape Diouf dafa dëkkoon foo xam ne benn quartier bu nga xamee ne euh, euh, dëkkandoom yi moom moo doon l'ancien maire de Marseille de Defferre ak l'ancien maire Jean-Claude Godin man maa ci teg suma bët nag ay doomu Jean-Claude Godin ay surtout Jean-Claude Godin bu ñu gisee Pape Diouf di génn foofu mais dañ ànd ak Pape Diouf si biir baax tey mënoo def cent mètres en dix minutes ñëpp a koy ñëpp a koy topp ñëpp a koy waxtaane ñëpp koy ñaan pour mu dellu jëlaat Marseille te ci fekk Pape Diouf dafa nekk ci xolu Marseille yi Pape Diouf mën naa ne c'est le c'est le Sénégalais de racisme parce que doon topp si moom ci sax ay Sénégalais sax mais ay tubaab ay doomu naar te fu nekk Pape Diouf dafa jaay dignité sénégalais dafa jaay turu Sénégal dafa jaay turu sénégalais ci euh, à premier journal sportif européen du tey à la une ak benn photo Pape Diouf en disant notre pape est mort cela veut tout dire ñun nag ñun ñàkk nañu français yi ñàkk nañu le monde sportif ñàkk nañu ñu ne la di ñuy ñaan yàlla maintenant nag yàlla xaral ko àjjana corona bi nga xamee ne moo ko fi jëlee loolu nag moom li ñu war a moytu ñu xam ne que euh, euh, réew mi décision bi ñu jël xëy na peut-être moom mooy décision bu baax bu nga xam ne pour Sénégal parce que la preuve mu ngi nii et eh kenn xalaatu woon ne Pape Diouf dana fi jóge maintenant nag danañ ko danañ ko suuli xaatam yi dañ ko bugunge mais la situation sanitaire aujourd'hui fekk euh, ko loolu dafa mën a nekk mais ku nekk nag mën nga dugg sa oto nga dem toog cimetière ya nga confiné ko bu ñu ko mën a defal. yéen suñu mbokk internautes yi mën ngeen a abonné ci suñu chaîne YouTube groupe Bawol info officiel ngir ngeen di mën di jot xibaar yu wér te wóor fu ngeen mënti ne ci ni mu gën a gaawee. Baolinfo.net site d'information générale baolinfo.net arobase gmail.com baoleinfo.net, informé en temps réel.